السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نولي نين بباخ زيار لين المختار لا ما في فسيه نيو اندي لين جانغ بيغا خامتيني موي جانغلم القران بي تي نيفو بيغا خامتيني موم مو غن سوفي بور كيغا خامتيني دا فا بغن من لير القران تي دير بو غات مان كوكو جانغلي اك ميثود بو خامني ميثود بو فيابل لاي دون ni nuyu bu baax a baax kilifa yi réew mi di nuyu sëriñ mën taxaam bàkki di nuyu mbooleem julli di nuyu mbooleem comme nous ñu koy waxoon suñ trois leçons yi passé bu fekkente ne da ngay door a vous nag dañ lay ñaan nga dellu ci première leçon deuxième leçon ba troisième leçon soo àggee da nga fa fekk lettres arabes yëpp jox nañ fi une explication yoo xam ne yaakaar naa la war a convaincre pour nga mën a gën a comprendre tey nag dañuy vous ci vingt lettres yooyu indi leen ko par groupage indi leen yi nga xamante ne dañoo une ak yi nga xamante ne am nañ tuuti wuute su ko defee première lettre bi bu alif ba jiin دال ه واو راسين حالونكو طا يا كيف لام ميم نون صاد عين فا laat xaaf raa siin taa saa xaa lonku del bu tooy taa bu tooy xëyin shin su tooy léegi lii boo xoole moom mooy nekk 28 lettres yi nga xam ne moom mooy 28 lettres euh, alphabet arabe léegi dañ la koy groupeel nga xool bu baax a baax nga bàyyi ko xel dafa am loo xam dañ koy wooyee onze alpha individuel wala boog dama koy wooyee man onze alpha individuel lu tax parce que nee naa la bii day jël S bii jël S bii jël A bii jël nangam bii jël nangam léegi onze alpha yooyu amuñu benn boo xam ne ñoom dañ koo bokkaleeg benn wala benn da koy nuroo nuroo la ñoom léegi avant may effacer table bi dama lay bàyyiloo nga xool su ma cosee bii muy xaalonk bi kose bi nga xamante ni moom mooy xëyin bi kose bi nga xamante ni moom mooy xaaf bi ñetti ñi dañ leen di groupé ñoom ñetti ñoom ñooy bokk KH ñëpp ay lañ foo leen mën a fekk bu ñu demee ba commencé dugg ci leçon yi nga xam moom mooy lay jàngalee yi ak forme yi foo leen mën a fekk rek ñoom ñett ñoom ñoom ñooy bokk nu leen di jàngee te gis nga leen bokkuñu benn forme bu ñu leen bindee incha allah bu ko defee moom lañu ñuy décortiquer leeral leen ko ba mu gën a leer ngeen euh, bàyyi ko xel bu baax a baax léegi mu indil la euh, onze alva individuel yi mooy alif baa jiin deel fee dama waxoon xë mais xë du ko indi parce que am na yeneen yoo xam ne ñoom la bokkal groupe damay indi waaw indi indi yaa indi keef indi miim indi nuun indi fa indi ra léegi 11 li 11 onze alva individuel 11 alva yi ñom ñep ay individu amu ci benn bo xamne man nga jël ni bi dafa rassembler ak bi wala dafa nuro ak bi wala nangam ak nangam amut ñom kese amu ci benn bo xamne man nga ko dendal ak benn peut être que nak man nañ nuro lu ñuy bindee moo bokkuñu lu ñu di jàngee forme bi moy 11 alva yi nga euh nuro nuroowuñ ak benn te benn nuro nuro nuroowut ak ñom su ko defee léegi 28 lettres la won jappal né jang nga 11 léegi mu war a des li nga xamante ni moom mooy euh, lettres yi ci des léegi ñoom it dañ koy groupé groupe bi ñu la njëkk indil dama lay indil fii groupe boo xam ne H lay nekk indil fi beneen groupe boo xam ne KH lay nekk muy xa na ngeen moytu nag di ko jàngee xë ndax souvent da ngay jàngal ñeen surtout yenn jigéen dañ koy jàngee xë te ci arab ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bii groupe la boo xam ne T lay nekk bii groupe la boo xam ne L lay nekk léegi loolu noo koy mën a comprender mooy fii dama lay indil première lettre bi muy. fee ba ma waxee alif ba jindeel ba ma àggee ci hë dama ko tëb hë moom moo nekk nii hë bi nag am na hë mag am na hë bu ndaw bii lañ daan jànge hë kabir moo tax boo xoolee dañ daan jànge hë kabir mu yàgg ñu naan ko alkubér dem ba yàq baat bi comme ni ma la waxoon dañuy fekk tudd naan ko Moodu Mamadou ba mu yàgg ñu ko manangam am na beneen bu tudd hë saxiir ñoom ñu naan ko asaxeer mais ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne aslu bi cosaan bi foofu la léegi bi ci toppaat mooy xaa lonk ak ayin bi hë lañ koy jàngee bi xaalonk bi ayin mais suñ demee ba ci biir ñoom ñett ñëpp ñoom ñooy bokk benn groupe groupe bi nag nekkul ne fii la lay jëriñ mais suñ demee ba ci forme yi ba dugg ci shakl yi ci masque yi koy gis na ñoom ñëpp ñoo bokk par exemple su ma ba koy masque bii war a nekk xa bii day nekk xa bii nekk xa su demee ba bii ba dugg ba dugg ci ni nga xamante ne noonu lañ koy conjuguer ci gàttal pour nga mën a comprendre su fi nekkee hi bi day nekk hi bii nekk hi su fi nekkee hu bii da koy nekk bii nekk lu bii doon rek la tax bii doon boobu rek ci forme boobu rek bii da koy doon bii da koy doon malgré nag prononciation yi wuute na mais li ma la wax fii prononciation amu fi léegi ma may la benn prononciation bu gàtt rek pour ci ñett yi pour yow mi may déglu nga nga mën a xam lan moo tax ma supprimer ko kii su ma la ko liiree dama naan la hu gis nga son bi fu ma ko jëlee dama ko jëlee fii ci sama dënd bi génnee air bii su ma la koy liiree dama koy jëlee ci ha gis nga ko ci pot lay génne moom it nga génne r mais bii moom it ñooy même chose mais bii da naan ko a ah, xoola ah, a xa léegi coono boobu léegi lan moo ko fi jot pour nga mën a décortiquer ñett yi rek beneen affaire la lay indi te bii mën nga koo jànge fekk ko ci benn baat bi ñu ko bind ci biir araab nga mën koo liire correctement ah te doo yàq baat bi ki lay déglu dina xam ne li nga bëgg a wax biit même chose biit même chose comme par exemple boo nee bismillahi bismillahi boo ko waxee yàq nga baat bi da nga wax bismillahi nag léegi doo ko fa indi te ba neewaan nga gis ko jàng naan la bismillahi di indi hi boobu laax yi rek lay wax tuukur mu gàtt ñu bàyyi ko xel bu baax a baax léegi su ko defee mu indi la ci groupe H bi KH bi muy xabi dama lay indil foofu leetaru xaaf indi la leetaru xaalong indi la leetaru xëyin lu tax ma dendale ñaari dendale ñaari gis nga kii ayin la fii nekk H kese mu ñëw fii nekk xëyin nekk KH di xa fii mu nekk xa kese fii mu ñëw mu nekk xa fii moom it beneen lettre la boo xam ne beneen forme la muy xaaf bi bokk na ci lettre yi nga xam ne ñoom ñooy lettre yu gën a dëgër mooy lettre yi nga xam ne ñoo ñoo gën a góore muy xaaf léegi bii moom mooy cosaan bi boo xoolee bi bu ñu amoon sakl bañ dem ba commencé commencé fu ñu jàng bii xa dinañ jàng bii xa jàng bii xa léegi nag comme ni ma prononcé woon ñett yi du ma bañ di xuus ci biir su ko defee que lay déglu day yaakaar ne noonu mooy méthode bi mu bëgg koo topp te da fekk daf lay sonal suñ demee ba ci biir da nga léegi tableau bi da koy capturer nga jël ko bu baax baax nga bàyyi ko xel incha allah dina la mën a jàppale ci kanam tuuti bi nga demee ba dugg ci masque yi nga xam ne forme boo fekk bii ñu defee ko fi maanaam bii fu ñu ko yónnee mu dem fa buñ fa yónnee bii ñooy ñu tudd suñ fa yónnee bi ñooy bokk ñu jot kii bu solee mbubb mu weex ki sul mbubb mu weex ki sul mbubb mu weex ñaar ñooy bokk teg teg ñu ñuy tudd bu solee mbubb mu ruus ki sol mbubb mu ruus ki sol mbubb mu ruus ñoom ñaar ñooy bokk nga xam ne maanaam forme bind bi rek ñoom ñoo wute mais jàngin bi benn la pour nga bàyyi ko xel baax a baax trois it même chose jàngin bi benn la su ko defee bu dee lettre T alphabet ngay dem ci biir lettre moom nga fekk fa ñaari lettre T comme ni mu amee trois baat H trois baat H bi te KH boo ko xoolee amul ci lettre ci alphabet français léegi fi da ngay daal di am fii ta bi nga daal di am taa bii lan mooy seen différence ñaari lettre yëpp lettre teel ci alphabet arab bii dafa gën a dëgër muy non bii dafa gën a tooy ni koy jàngee bii dafa gën a sec ni ñu koy jàngee mais du ma dikkaat ci euh, prononciation parce que day indi jafe-jafe pour yow muy déglu jàppal na ñaar yëpp ay lettre teel ci alphabet arab su ma dikkee fii encore explication bi ñëwoon na ci euh, deuxième leçon bu su ma juumut muy entre laat bi. ak lam bi muy comme nga bëggono bind fallu tay ji ñaari el yépp dang koy utiliser ci biir fallu pour ma bàyyiloo xel ñi nga xam ne dañ koy jàngee date am nañ ci droit parce que yoon la mooy ñi nga xam ne dañuy jàng wars ak ñi nga xam ne dañuy jàng hafs waa wars dañuy jàng laat waa hafs di jàngee date loolu it moom du benn jafe-jafe ndax cosaan la loo xam ne fi lañ ko fekk léegi lii may groupé yi quatre groupe mi ngi nii léegi des na benn groupe boo xam ne mooy lettre sim bi ma la waxoon lettre boo xam ne sept la man groupe sept laa koy tuddee nga xam ne sept lettres yoo xam ne yóbbu yëpp S la nga xam ne yow lieu kon léegi ngay jàng 28 lettres benn bu ne nga koy prononcer di sonn 11 la ñu jàngaloon da nga ñëw fii 12 13 14 15 su ma ñëwee beeg muy 16 xam ne dañ koy compresser au lieu kon muy nekk 28 lettres léegi 16 lettres rek incha allah bu ñëwee ba ci kanam ci ngay focus. gis comprendre 16 lettres rek da nga daal di comprendre 28 lettres yëpp mais 16 lettres yi nag fi nga koy comprendre mooy euh, boo demee ba jéggi euh, alphabet bi ba mën lire ba commencé di lire di jàng masque yeeg yooyu 16 lettres yi foofu la lay jëriñ au lieu kon ngay nekk di concentré wu ci 28 lettres bu dégg ba ci suba ngoon da ngay concentré wu ci 16 lettres lépp jeex léegi benn groupe bi ci des moom mooy groupe bu S pour nga bàyyi ko xel léegi dama lay indil racine bu ma indil la sin, indil la del bu toy bi am na ñu koy jàngi saal del bu toy indil la sin su toy indil la saat indil la ni ñu koy jànge cuun moom it indil la taab tooy bi boo xoolee un deux trois quatre cinq six sept yi mooy groupe sept yi yépp S la nga xam ne tey jii boo demoon tim si benn téere di jàng comme fii boo nee suyi na suyi na boo boo bàyyee xel ci ton bi ma génne génne naa foofu S ma ne samaawaati S mi ngi ci biir su ma la nee S mi ngi ci biir ainsi de suite ainsi de suite wala ma ne la salaat es mi ngi ci biir lu ma mën di wax rek da ngay sentir es bi wala ma ne la sulumaat wala yeneen ak yeneen yaa ngi sentir es ci sama biir sama biir parole léegi es yooyu may wax noonu ci biir lettre arabe yooyu benn es bokkut ak sa morom te benn bu nekk bokkut ak sa morom ni koy prononcé léegi la fekk ne yow set yi rek su ma la ko bëggoon a prononcé man mii tax na ci yoo xam ne mënu ma koo indi exact comme ne ci sept lettres yi ñoom ñëpp es lañ nga néewuma la nag bii S la tudd bii S bii S suñu demee ba mu am ay forme masque ma delluwaat ci suñu demee ba mu ay forme masque forme masque yi dina ci ñëwaat ci yeneen leçon yi nga ne moom moo ci boobaa bii fa ñu ko dana ñëw ci kanam masque yi comme ni bi ñu maasee bii ca kaw la muy doon ñu maas bii ca kaw la muy doon maas bii ca kaw la muy doon maas bii ca kaw benn bu ci nekk bu ñu ko maasee ca kaw la muy doon moom la moroomam di doon xëy na nag du ma teel a indi masque yi pour muy doon jafe-jafe mais jàppal na daal bii bu demee ba ñu war koo liiree sax bi dañuy lire bi sa lire bi sa lire bi sa lire bi sa lire bi sa liire lépp day nekk sa gis nga non facilité bobu mom mo ci nekk suñu demee bañu wara war a jàng bii si dañuy lire bi si bi si bi si buñu ñu fuñu fu ñu rek ki bu solé boobu rouge bi sol boobu rouge ñoy bokku tour bokku sante bi bu solé rouge ñun ñep ñoy bokku tour buñu solé noir bokku ndoo luñu sol ñoy bokku ñu tour bokku ñu sante su boba li facilité la lay doon bo xamné day tax yow nga gën ko mëna comprendre légui nak tableau yi dang koy capturer nga xol bu baaxa baax yi nga xam ne ñoy grouper jafé jafé yi nak ci li rek la nekk soo demee ba mokkal euh, onze alva individuels yi mokkal groupas yi yeneen lettres yi parce que bu la neexee mën naan mën naa leen a jëratul ngay jàng lu tax jëratul ngay jàng mooy benn leçon laa lay jox mu doon benn explication bu ndaw rek la ci des yëpp yaa koy àggale sa bopp ndax dama lay indil forme masque yi ne la forme masque bi nii la forme masque bi nii di jël masque bi rek xam yow forme bi nan la surtout bu fekkente ne xaw nga xam tuuti ci français même sa tur sax boo ko mënee lire soo compressé soo so soo mokk vingt huit lettres yi rek parce que mën naa ne jaratul ngay jëlati beneen leçon wala jaratul ngay jàng da nga mën léeral sa bopp ci diir bu yomb-yomb ba tey ñu ngi leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu fii amanillah